acca salaamaaleykum mbokk internet yi seetaan seen site internet Ngoy TV ñu siyaar leen bëggawaat leen bu baax a baax tey nag ñu fas yéene waxtaan ak Serigne Mame Gor Diène nekk ba diwaanu Touba li ñu fas yéene waxtaan ak moom nag di làmb am na ay combat yu nekk suñu kanam yoo xam ne ñu ngi koy waaj diggante kan Gris Bordeaux ak Ama balde Serigne bi nee na am na lu mu ci gis ci seet te ñu fas yéene waxtaan ak moom fan la ndam li seete pour le moment ak kan moo jiitoogul moment bii ni ñu toll nii. te itam ñu fas yéene waxtaan itam ama neex ak bébé ama neex ak ñaabu ndaw sëriñ maam Góor Jën borom Touba set ci maam seex Issa Jën jàmbaaru l'islam boobu mu ne am na lu mu gis ci combat boobu teñ koy teg ci taabal bi xam lan la acca mu ne itam ki nga xamante ni moo di Ama Balde ak Gris Bordeaux am na lu mu ci gis dina ko wax ak ñaabu ndaw ak ama neex dina ko wax ak euh, guy gi ak Ada Fass nee na combat boobu itam Serigne Maam Góor Jën borom Touba nee na am na lu mu gis ci combat boobu lan la ak nan la dañuy jokkoo ak sëriñ Maam Góor Jën diwaanu Touba Mbacké waxtaan ak moom ci lan la gis ci combat yooyu nga xamante nii moom la ñuy waaj a présenté incha allahu rabbi ci seen seen YouTube bu mag bi di Ngoy TV aca salaamaaleykum Serigne Maam Góor. waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Moussa. maa ngi lay siyaar bu baax bu ñu lay delloo siyaara alhamdulillah. alhamdulilah. mbaa ci jàmm. ñoo ngi sant yàlla baax tabarikàlla. waaw ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokku internet yi. waaw sëñ Moussa ñi si mbokku internet waa TV yëpp. waaye ginnaaw loolu ñu ci nuyoo bi siyaara bi sëñ Mountakha Mbacké. di ko ñaanal yàgg si lu daan ak wér. jërëjëf. ak mboolem kilifa di yéen ci ci réew mi ak aada yi. di ñaan yàlla def jàmm Sénégal ci rabbi ci barke alxuraan karim di ñaan tabaski gi ñu dëgmal yàlla suñu doom yóbbu ñu ci jàmm ak amin ñu fekk ko ñu tal ko ci ko ku amagul xar yàlla jàpp na nga am xar ah waa ngoy tv amaguñu xar de siix bi <laughs> ah di ñëw de ñëw insha allah rek dina ñëw bu soob yàlla insha allah yàlla ko yàlla jàpp na ñëpp rek bu soob yàlla amin barke yonent ya, yàlla ya, Muhammad wa ah, ñu lay siyaara ba nuyu seen internet bu baax a baax a baax yaram dana ah, jere jërëjëf wa comme ni ma ko waxee léegi ci ubbite bi rek waaw ah. nee naa tey ñoo ngi jokkoo ak sëriñ maam Gor Diène nekk ba diwaanu Touba. Mm-hmm. ni ma koy waxee saa su ne di set ci Cheikh euh, maam Cheikh Issa Diène. ndeysaan dëgg jàmbaaru lislaam boobu. Mm-hmm. tey nag ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni mooy ñetti bés yi nga xam ne moo nekk suñu kanam. muy diggante ki nga xam ne moo di guy gi ak Ada ak ki nga xam te ne nii moo di ñaabu euh, ndaw ak ama neex. Mm-hmm. ak euh, ki guy gi ak Ada ak Gris Bordeaux ak ama. dëgg la Serigne Maam Góor nee na combat yooyu am na lu ko ci seet woon. Mhm. ñu bëgg a waxtaan ak moom lan la ko ci seet woon. Mhm. incha allahu rabbi bisimilah ñu ngi lay jox kaddu gi. waa sëñ Moussa ñu ngi lay seeral baax baax. Mhm. di seeral di seeralal ñëpp rek dina ñaan jàmm baax a baax. comme ni ko waxee rek ñetti combat yoo ngi wax muy Ada Fass Gouye Gui. waaw. ama neex ñaawu euh, ndaw. Ama Baldé Gris Bordeaux. waaw. waaw yëpp wax dëgg yàlla seet nañ ko ba am ci gis. Mhm. ci bu ci nekk ci ñoom. dëgg la. waaw léegi nag yaay xool ko bu ñu bëgg commencé waaw commencé ci Ama Balde ak Gris Bordeaux. Ama Balde ak waaw. waaw bu dee Ama ak Gris Bordeaux bi. nee mhm. na combat boo ne combat bu deewaar lay nekk combat bu yéeme. dëgg la. ndax Ama de ku ne gis na fi mu jógee. loolu mhm. xëccoo di titre roi des arènes nekk ci ginnaawam. mu jógee ci combat wax na daa def ko metti deug la bëgg bëgg dabé wat waat place am ci hmm di dajé kan giri bodo mi nga xamante moy 3e tigre de hmm giri bodo bam mu 3e tigre de Fass ba léegi su ma jumul yaakaar naa li ci am ci ay ndam bari wut deug la xañ na peut-être même combat yi combat bari way waaye bari wut lim ci am ci ne ci am ay defet peut-être moo ëpp mm-hmm. moom it xam kon mi ci mi ci ay jafé jafé deug la likoy dimbali wa rek moy mo am ndam moo tax mm-hmm. am mu ñëwa ci course bi waaw kon combat boobu rek suñu Moussa combat bu métti lay doon ndax kii xale la bu ne si yoon bëgg a dem jëli roi des arènes bi. Mhm. ko troisième mu naan lu mu dëgg la ba ba léegi affaire yi doxagul ci moom. Mhm. boo xam dafay métti ci ñoom ñaar ñëpp. macha allah. waaw ci mhm. bu daanoo des na ko yërëm. boo xam ne moom it daa nekk ci yoon. dëgg la. añee bu daan moom mana day combat bo xam ne day métti day métti si ñaar ñëpp. dëgg la. wa ci ko do bobu non manam ci walum mystique comme suñ bi xamna ah. xam mom suñ bi ci limuy xol xool ci walum entraînement bari wul dëgg la mais ci walum mystique bi. Ah. mama bi ñu tollu ni kan nga gis kané mo wara yok taxawayam wala kan nga gis kané mama bi mo gëna gën jekku ci taxaway wa combat bobu nak ñaari ñoy yëpp ci walum mystique. hmm maanaam day nekk combat boo xam ne maanaam mystique bi mën na cee bëri. waaw. waaye nag du mystique bi mooy jeexal combat bi. ah. déedéet. est-ce que. lu ci mystique bi bëri bëri bëri bëri bëri. Mm-hmm. ñoom ñaar ñëpp kenn ñoom ñaar. Mm. du jàpp sama ci gàllaaj. dëgg la. waaw ah, combat boobu. Mm-hmm. mystique mën na ci am bu bëri waaye maa ngi xamal ne képp ko ci def bu bëri ci maanaam ay yoo xam nga bëgg a jàpp nit ki. waaw. du yomb nga jàpp kenn jàpp si morom ci ñoom ñaar ñëpp. allahu akbar combat boobu la fay feeñ moom doole moo fa feeñ ak technique mm-hmm. ak xel ak yooyu waaye nag bu dee ci wàllu mystique moom mystiquement ñuy jàpp kenn ki mm-hmm. ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp kenn jàpp sa morom mais buñ demee ci wàllum doole boobu nga wax sëñ bi waaw fan yi passé gis nañu chaque jour ah, mag ak xale doon bere ñu jël exemple rek ci Eumeu ak Sa Thiès waaw ñu doon wax ci wàllum doole xale ak doole mag waaw même cas boobu moo ñëwaat ci diggante amaa Baldé ak Gris booy xool ci wàllum doole ñëpp nena nañu amaa moo ëpp doole ñëpp ne nañu amaa moo gën a féete mais est ce que li dal Sa ci ci combat bobu ñu ko doon wax lolu digganteem mak Omar Sène Omar Sène ñew daan ko ci wone kané mom ñakul dool est ce que mënul dal Ama de ak Gris bordo yi yaakar ci combat bi ah ayam Ama Baldé kay ku képp ko wax la yaakar ngi koy ci erreur waaw bordo hmm mbeur bu mag la waaw waaw expérience face à la jeunesse lañ wax deug la de mais Gris Bordeaux ko ko mbër boo xamante ne mbër bu am hygiène de vie la. Mhm. mbër boo xam ne mbër bu ñeme entraînement la. dëgg la mbër mbër boo xamante ne a ci la bokk. Mhm. ndax mbër la boo xam ne bu dee xeex normal xeex bu jaar yoon foofu ma xeex mbedd yi. waaw Gris Bordeaux moom mbër boo ko yi ko ci dàq ci loolu am moo yaakaar naa ñi ko ci la bokk. dëgg la bu fi dàqul ba maanaam ñu naan mag la mag la waaye mag maa mi nga la. Mm-hmm. soo ko xoolee jaf soo ko xoolee jaf jëmale ci moom mm-hmm. man man ko cee daj pour am doole. dëgg la doole boobu ñu wax nag la face ah, doole ba ñu yoon ñaa amu ko am na doole. Mm-hmm. waaw na doole te kon li leen saa si ah, gi am seen. ah mën na la ama bale ci ci ci Gris Bordeaux ndax doole moom. maanaam koo mag mag muy caaxaan wala mag muy fo. kooku mu du am doole waaye mag boo xam ne da ngaa respecté sa bopp. waaw. di entraîner normal xam li ngay lek xam li ngay naan mhm. man nga bu doole man nga bu doole xale ndaw de wallahi deug la kon ko ko côté bobu moom képp ku sukkandi ci côté boobu man nga juum mhm. wa kon ama ne ama balde xañ nag mooy xale moo gën a defee taxaw waaye nag dajal nekkul ko xamante ci tey exemple deug la manam manam manam ku ñakkal soo ko la joxe exemple rek nga xol Cristiano Ronaldo mhm. Cristiano Ronaldo mag na foofu moo mag moo mag Sadio Mané lu bari wa wa moo mag ay footballeur yu bari wallahi deug la mais ba légui ni ci football est ce que ñi ko ci man bari na ci day dugg ay bi ba légui ni wallahi deug la léegi lan moo ko may doon hygiène de vie ak entraînement. waaw waaw ko. Mm-hmm. boobu loo xamante ne moom côté boobu képp ku sukkandiku mën nga daanu. dëgg la a wax am na doole macha allah. Mm-hmm. waaye nag côté boobu moom bu ñu ci a sukkandiku foofu. dëgg waaw bu fekkee daal bu fekkee ci wàllu ki ci ci mystique waaw Ama balé nak xagné côté mo gëna a favorable mo gëna taxaw mo gëna amagul sens. waaw. mo ci amagul mo ci amagul sens yi tuuti. moo ci amagul sens. waaw mo ci amagul sens mais wul bari wul wa combat bi combat ndekante la. ndekante ci ñom ñaar. ndekante ñom ñaar ku gëna gaaw gën ko ku gëna a gaaw rek yaay mo combat bi. deug la. wa nak ni ko combat bo xamanté ci Ama Baldé dafa jekku mystique 100% wala 50% waaw. ngir bodo aussi nekul ko dafa ji dafa jiitu ci walu mystique 100% wala 50% deug la. bu doon ci walu mystique dama xam ne dañoo tolloo dañoo mhm. cinquante cinquante la. dëgg la. waaw bu dee nag ci côté sens ci wàllu wàllu baatin nag. Mhm. amaa moo juuti moo juuti foofu tuuti waaye bëriwut nekkul lu leer naa ñu daal. ok waaw moo tax côté boo ko amaa bal moom bu bëggee daal. Mhm. dina gën a yokk ay ñaanam ci wàllu baatin. dëgg la gën a am xam sarax sarax yu koy may ndam. Mhm. waaye nag moo gën a am favorable tuuti nag ci ngir bëddoo. waaye nekkul daal leer naa moom nekkul loo dafa leer naa ñu naa ñu naa moo juuti moo juuti foofu foofu. la. waaw combat bu noonu la demee. moom day yokk ay ñaan yokk saraxam rek su ko defee mm-hmm. mais ñaani sarax nag du ñaan yoo xamante ni ñaan yoo xam pour jàpp nit ki boo fekkee pour jàpp nit du ko jàpp loolu moom waxal la ko moom nga dégg xam naa eh, day nekk mm-hmm. la sarax yoo xamante sarax yi daf lay daf lay yoo xam ne lay ñoddil mm-hmm. maanaam loolu mooy combat bi ko ko ëpp sens ci côté boobu yaay gaañ mais wàllu mystique moom kenn du ci gaañ foofu waaw. oui pour yow mi nga xam ne dangay toog di jaaxle doo am benn actualité ci Sénégal wala sax ci bitim réew. ak Ngoy TV da am lépp luy actualité. Ngoy TV say information day leer nañ. Ngoy TV daal c'est le paree nag yemul ci lool de lépp luy événement lu ci mel ni làmb wala cant ak lépp lu mu mënti doon Ngoy TV pare na pour gunge la. wala da nekk mara bëgg ñëpp xam la xam sa xam-xam wowal gaaw Ngoy TV dëgg dëgg. TV c'est le meilleur Donc, donc abonnez-vous sur Ngoy TV ngir di am bépp actualité ak information yu leer nay service commercial Ngoy TV 77 552 83 82 Voilà 77 950 33 19 ou 33 868 86 22 Ngoy TV Dal, c'est le meilleur Abonnez-vous di am say actualité ak say information yu leer nay Ngoy TV dal Ha ay <laughs>